wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa xaliluhu ayyadahu bi nasrihi wa bilmuminin wa allafa bayna qulubihim fa asbaxu bi nicmatihi ixwaanan wa ala aali baytihi altayibiin altaahirin wa ala asxaabihi alguri almayaamin wa taabiciina wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin mbokki jullit yi mbokki ñi teewlu ci seen rajo Manore FM 89 Dakar ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di ñaan suñ borom subhaanahu wa ñun ñëpp yàlla nañu boole defal jàmm yàlla nañu yàlla sàmm sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu suñu réew yàlla musal ñu ci musiba ak balaa musal ñu it ci ay mbokk yu tàqaliko ñii di xëy ci waxtu wi yal na yàlla barkeel seen xëy ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm ànd ak it lañ wuti woon yëpp yal na leen ko yàlla defal ñi nga xamee ni ñu ngi sàkku xamxam xam yal na yàlla may leen xamxamu xamu zahir ak baatin bañ mën a jëriñ seen réew jëriñ seen bopp jëriñ diine lislaam ñi nga xamee ne ñu ngi sëy yàlla yàlla barkeel sëy yi defal leen ngerte te wattu ko aar ko ñi nga xame ne dugaguñu néegu sëy yàlla na leen yàlla tànnal te mu def ci ngerte te barkeel ko fàttewuñu ñi ci prison yi yàlla na yàlla génne leen ci béréb yooyu delloo siwaat leen ci biir société bi delloosiwaat leen ci seen njaboot te yàlla bu fa kenn dellooti képp ko am soxla moo xam da ngay jàmbat feebar moo xam soxla àddina la mbaa bu àllaaxira bépp soxla rekk yàlla na ko yàlla faj mbokki jullit yi tey nag ñuy waxtaanee mbokk ndax suñ borom subhaanahu wa taala wax nañu bu yàgg ci sootu xujuraat boo demee ci laaya fukk buur ak naan innamal muminuuna ixwa mu ne yéen jullit ñi yéen gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa topp am sariya am yéen ñi gëm ne dekki dina am yéen ñi gëm yowmal qiyaamati yéen ñi gëm alquraan maa ngi leen di wax ne yéen ñëpp ay mbokk ngeen boo ne nag mbokk du danga koy xam rekk diw sama mbokk la ndax jullit la diw sama mbokk la ndax ñoo bokk deret xam ko yam ci loolu doxalul ak mbokk moo tax buur bi ne fa aslihu bayna axawaykum mu ne seen mbokkoo googu na ko rafetal na ngeen ko yéwénal nangeen ko dox waaye xam ne ay mbokk lañu rekk te doo ko dox buur nee na loolu jëriñul dara moo tax sallallahu alayhi wa sallam moom it waxoon nañu ne al muslimu axul muslim waxoon nañu ne jullit daal jullit mooy mbokkam kon nag waxuma ak ki nga xamee ne dangeen bokk deret ki nga xamee ne yéen a bokk lépp kooku dafa romb mbokk moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni yow mi nga xamee ne yaay wuyoo baatu jullit di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah di taxawal julli mu ne yow daal sa gëm yàlla mënula mat lu dul li nga bëggal sa bopp loolu nga daal di bëggal sa moroom soo bëggee jàmm ci sa bopp bëggal ko sa njaboot pour sa ngëm yàlla mën a mat faw loolu danga koy yéene nag sa mbokk waaye mbokki léegi ñoom daal nañ ñàkk di taxawaalu sama buntu kër di ma ñaan tey ma may leen suba ma jàmbu leen loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa ngëm yàlla matul ni daal dafay am xol boo xamee ni la mu yéene boppam loolu la yéene mbokkam moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi xadis bi anas ibnu malik radiallahu anhu moo ñu ko nettali waaye muttafaqun alayhi la kon mbokk yi ay julit ay mbokk li leen war mooy ñu suude nekk benn di digle lu baax tey tere lu bon maanaam daal ñuy diisoo diisoo buy am ci biir ay mbokk loolu daf leen yokk doole waaye day tax ñu nekk askan wu ñépp di bàyyi xel ndax loolu dafay fexe ba ñu bennoo te ay nit bu ñu bennoowee rek seytaane daal di leen di ragal ba du mën a am ci ñoom benn wàll moo tax boo demee ci suratu tawba ci laaye juróom ñaar fukk ak benn boo la ngi wax naan wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baadin ya'muruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkari kon nag eh, ay nit bu nekkee benn nekk ay mbokk waruñoo ñaawalante ci làmmiñ waruñoo ñaawalante it ci kàttan mooy boo xamee ci sa mbokk lu rafet wax ko soo ko xamalee lu ñaaw suturaal ko te ko nag ci ab ruq daal di koy yedd waaye liñ gis ci jamono ji koo xamal lu bon donte ko ne dafa tarxiis nga génnee ko ci mbedd yi dugal ko ci réseaux sociaux yi daldi koy weer dëgg-dëgg loolu taxul woon nag lislaam di wax ak mbokk nit dañ koy suturaal ndax kenn ku nekk ci ñun am na ab sikk te bëggul nag sikkam bi ñu daldi ko koy weeral kon boo suturaalee sa mbokk suñ borom subhaanahu wa taala suturaal la fii ci àddina waaye nag li gën a neex mooy boo ñëwee yowmal xiyaam mu daldi la fay solal malaanu sutura ma ne ku suturaal sa mbokk fii ci àddina suñ borom subhaanahu wa taala daf lay suturaal fii ci àddina waaye yowmal xiyaam boo dekkee ba taxaw nag ci kanamam mu daldi lay solal malaanu sutura te yonent bi waxoon ne ne yowmal xiyaam képp koo xamee ne yàlla suturaalu ko moom foofu gisuñu ko mbaaw kon nag mbokk yi li xew ci jamono xaawi sutura weerante dëgg-dëgg loolu li muy tekki mooy ak mbokkoo daal dinay jeex moo tax sallallahu alayhi wa waxoon na ne al muslimu man min lisaanihi wa yi ñaar yi muy kàttan ak làmmiñ yonent bi nee na képp koo xamee ne musal nga ci jullit ñi yow daal ab jullit nga kon loolu li muy tekki mooy ki nga xamee ne làmmiñam bi lu ñaaw rekk la ci wax lu ñaaw rekk la ci seede loxoom be kàttanam lu ñaaw rekk la ciy def lu ñaaw la ciy dox kooku li muy tekki mooy nekkul ab jullit yow daal boo gisee image bu bon boo déggee ci say nopp wax ju bon li ngay njëkk def mooy jéem daas sa làmmiñ commencé di ko tasaare lu ne toq ci sa loxo ci ab safaan li ngay njëkk a def mooy commencé nag woote téléphone dugal ci réseau sociaux yi commencé nag di ko tasaare ndax bëgg buzz wala bëgg nag ñu koy seetaan lu bari loolu képp ku ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow nekkoo ab jullit boo ci boolee sa bopp yaa boole ci sa bopp ci daayira bi muy daayiratul imaan waaye suñ borom nag ak yonenteem sallallahu alayhi wa sallam considéré wuñ la ab jullit kon nag euh, liñ ci déggee mooy yéen ñi nga xamee ne yéen ñuy suivre ci 89 point 4 ci Dakar seen rajo Manore FM liñ ciy déggee daal mooy ab jullit mooy ku am sutura moo tax sallallahu alayhi wa waxoon nañu ne nit daal ni muy mel ak mbokkam mooy comme benn bâtiment ndax ab bâtiment boo koy tabax faw dangay jël brique jël ciment teg ci jël beneen brique teg ci kawam jëlaat ciment tegaat jëlaat beneen brique teg ci kawam bu yàggee nga daal di am benn mur bu daal di taxaw mu ne jullit nag ak jullit moromam nit ak mbokkam noonu lañu war a mel ci yërmande gi ci jàppalante bi ci woyof bi ci suturalante bi ci bokkoo nekk benn te bañ a tasaaroo ay jullit buñ melee nii ñii ay mbokk lañu waaye nag ay mbokk bu ñu melul nii nañ xam ne tasaaroo nañ bu yàgg moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne masalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim ka masalil jasadil waxid iza shtaka minhu aduwun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal xuma sallallahu alayhi wa sallam waxoon na bu yàgg ne julli daal ak jullit moromam day mel ni yarami doomi aadama su bopp méttee bët yi daal koy yëg ba du bëgg dara ci xool tëdd rekk lay bëgg ak nelaw loxo ne ma ni damay jàppale bopp du bëgg a jël dara dafay daldi di tayal tànk tam ne damay jàppale bopp sawaruma dem fenn biir bi tam ne damay jàppale bopp làmmiñ ne ma ni dinaa ci jàpp dara du saf si làmmiñ bi biir bi tam du yëg ak xiif julit ak julit moromam nit ak mbokkam noonu lañu war a mel su musiba dalee sa mbokk nga daal koy taxawu daldi koy aar daldi koy suturaal daldi di koy yiir awul ko nag musiba boobu ba du metti ci moom su fekkee ne bànneex moo ko dal nga daal di kontaan ànd ak moom ànd ak moom ci mbégte moomu ba lool di daal di jeex ni daal noonu lay mel ak mbokkam waaye tojante ay bopp surtout thèmes yi nga xamee ne walla slogan yi nga xame ne moom la jël xëppante ay asib dóorante ay jaas yi dëgg-dëgg loolu nekkutoon kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamee ne moo ñu waxoon ni boo yëkkatee ngànnaay donte kay ne dangay fo di ci xupp sa mbokk yonente bi nee na génn nga ci daayiratul muslimin man xamala alayna silaaxa falaysa minna yonent bi nee na képp ku bocci ngànnaay di tiital sa mbokk jullit mu ne bokkatoo ci ñun ma ne xoolal ci jamono ji ñu nekk tey léegi kenn ñemeetul photo ndax euh, dañuy modifier ay photo boole ci lu ci bokkul taqale la ak nit mu mel ni yéen a àndoon te fekk na yàlla xam ne ne kooku gisante woo leen léegi xoolal li xew dangay waxtaan ak nit yónnante ay audio mu dal di dagg moom la ko ca intéressé daal di koy publier ànd léegi vidéo yi dangay gis vidéo boo xamee ne ëpp na fukki at bëgg taal ab dëkk tax ñu génnee ko mu mel ni vidéo démb wala bu tay la loolu yëpp nag yonent bi junjoon na ko waxoon na ne laa yushiru ahadukum ala bi silaaxi fa innahu laa yadri laanna sheytaana yanzacu fi yaddihi fa yaqacu fi xufratin min annaar waxtu woo xamee ne yaa ngi préparé pour def lu bon waxtu woo xamee ne yaa ngi xalaat pour yàq deru sa mbokk waxtu woo xamee ne yaa ngi xalaat pour uññi awra ak toroxal sa mbokk mu ne seytaane dafay ñëw nag taxaw sa wet di la déey ci sa nopp naan la acca gaawal defal di la encourager ci lu bon loolu te fekk ne xamul ne yaa ngi gasal sa bopp nag pax moo xamee ne directement safara la kon mbokk yi nañ leen bëggante nañ leen yërëmante ay mbokk noonu la ñuy mel moo tax di nga gis sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni mu ne nit ak mbokkam waru koo tooñ nit du tooñ mbokkam mu ne nit warul toroxal mbokkam sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni nit warul gàcceel mbokkam waru koo doyadil waru koo gëdd lii bisu àjjuma la ko waxoon ca Arafa ci xajatul widaa mu nekk la dernier discours di prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ak jullit ñi mu ne julli daal du tooñ mbokkam julli du gàcceel mbokkam du ko desal ginnaaw mu ne jullit du gëdd mbokkam mu ne ab jullit dëgg daal dafay suturaal mbokkam moo tax buñ àndee rekk daal di am doole gi sa famille boo gis ñu ne famille bi famille bu ñu naw la dafa nekk ne famille ba dañoo ànd ci dëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu Bashir radiyallahu anhu nee na yonent bi nee na aljamaatu rahma wal furqatu azab sëriñ bi daana ko firi di wax ni mu ne aljamaatu raxma ay mbokk yi ànd di diisoo mu ne lu ñu song rekk daldi koy daan wal furqatu azab mu ne ay mbokk yu tàqaliko di xiiroo ka ŋaayoo duñu waxtaan mu ne lu leen songu daldi leen di daan kon loolu war naa tax ba kenn ku nekk ci ñun fonk mbokkam ànd ak moom ci lu neex ak ci lu naqari loolu buñ ko defee rekk suñu jullit dafay daldi mat gis nga sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne xanaa bëggoo leen ma wax leen yéen saxaaba yi loo xamee ne darajaam gën na fuuf woor ak saraxeeg julli ñu nag ahankay yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy fexe ba defar ay diggante sëriñ Seck mii mbokk sëriñ Jaw mii ñoo bokk ndey wala seen ndey yee bokk wala seen baay yee bokk ay mbokk lañ daal waaye dañoo réeroo nga fexe ba loolu daal defaru ba ñu àndaat ci jàmm loolu dara jàmm ëpp woor ak saraxeeg julli nga gis famille bu tàqalikoo nga dox ca diggante ba ba ñu ànd dëgg-dëgg ay mbokk noonu lañ war a mel moo tax sallallahu alayhi wa waxoon nañu ne bu leen bañante buleen leen iñaanante bu wanante ginnaaw te buleen dog ak mbokk sallallahu alayhi wa ma ne waxoon na ni bu ñu bañante bu ñu iñaanante bu ñu wanante ginnaaw te bu ñu dog ak mbokk laa tabaaxadu wala taxaasadu wala tadaabaru wala taqaatacu gis ngeen lii mooy nag ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa jëm ci ñun moo tax bégaloon nañu ba wax ñu ne bisu altine bu jot ak bisu alxemes mu ne suñ boroom subhaanahu wa dafay sant malaaka yi ñu ubbi nag buntu àjjana yi képp koo xamee ni nekkul di bokkaale suñ borom subhaanahu wa taala bàkkaar bu mënti def dañ ko koy daal jéggal ba mu des nag nit koo xamee ne ci xolam bi def ci tée lu ñaaw jëmale ko nag ci mbokkam mooy ñaar ñoo xame ni juboowuñu ñaar ñoo xame ni ñu ci mbañante ak iñaananteeg wanante ginnaaw ak dogoo ñii suñ borom subhaanahu wa taala lay wax ne ñii moom boolewuma leen si seetaan leen ba keroog ñuy juboo ngeen daal di leen di boole nag ci mbooloo mi nga xamee ne alxemes ak ajjuma dañuy ubbi buntu àjjana yi buñ bokkaalewul seen borom subhaanahu wa ñu jéggal leen bépp bàkkaar buñ defoon kon gis nga wanante ginnaaw ak dogoo dog ak mbokk gis nga ni mu bone ak ni ko lislaam xale bee kon mbokki jullit yi boo amee benn geesul sa mbokk soo amee ñaar geesul sa mbokk koo tane dimbali ko te yàlla tax alal ji bi ñuy gane àddina kenn andiwaalewu ko bu ñuy génn àddina it kenn du ko yóbbuwaale kenn musta gis am ku génn àddina ñu ne immeuble yi ak or yi moo ko moomoon nañ ko ko suulaale musoo ko dégg te doo ko dégg ba yowmal xiyaamati nit bu génnee àddina dara du ko topp lu dul juróom ñaari mètre percal yi nga xamee ne moom lañ koy suulaale dara du ko topp alal jeeg doom yeeg demet demet yépp fii la koy daal di bàyyi moo tax daal doomi aadama li ko suñ borom wërsëgale loolu moyen la pour mu dox ci ak mbokk moyen la pour mu jaamu ci yàlla waaye yàlla jox la wërsëg wërsëg woowu nekkul arme pour xeex say mbokk waaye arme la pour défendre say mbokk kon nag nañuy dox ci dëgg te di ko wax bu ñu diggee nañ fexe respecté lañu ñu suñ joxee rendez-vous it nañ fexe ba duñ ko faussé yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñett mu ne képp koo xamee ne mu ngi ci ne donte ke ne mu ngi julli donte ke ne mu ngi woor donte ke ne mu ngi dem màkk di aji wala muy umara ji yonent bi nee na kooku ab naafeq la ñu ne ko mooy kan mu ne koo xamee ne bu waxee rekk daldi kàcc du wax dëgg koo xamee ni su joxee rendez-vous fauché ko ak koo xamee ne waxtu wu la diggee daldi lay wor yonent bi nee na donte ke ne mu ngi julli ñu ngi koy gis donte ke ne mu ngi woor ñu ngi koy gis donte ke ne mu ngi dem màkk ñu ngi koy gis yonent bi nee na ab naafeq la kon nag mbokk yi nañu rafetal nag jëm ci suñu mbokk buñ bëggee am ngërëmu suñ borom subhaanahu wa kon yéen ñi ñu doon teewlu ci 89 point 4 Dakar Manor FM La Voix des Femmes seen mbokk al oustaz Abdoulaye Saïd Gueye moo nekkoon ci micro bi ñu ngi ñaan buur bi subhaanahu wa taala yàlla na ñu defal dégg ak topp yàlla war ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñun ñëpp ñu daal di ci ànd di dox mu wan ñu ay caaxaan bañ xam ne lii yëpp caaxaan la wan ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu